yow de ñu ngi liggéey rek a wóor. Mhm. opposition bi yow yow naa la porte plainte. yow da ngay dugg lay fay yi laay dagg yow bu ma daggee vidéo yóbbu ko da ngay dugg. ba tey yow ñu ngi lay fay baax na mhm. ba ma ba ma yóbbu la ci yoon li nga xam ne lépp dëgg la léegi. <laughs> Euh, Ketchup ñu ko ci encouragé bu baax di ko félicité parce que wax dëgg yàlla li mu def nii jàppale réewam la ndax mhm. place boobu mu ji dina ci jël ay employé te dina leen fay te ñooñu ñu tamit bu weer bi ko jël. jël na ci ceeb diwlin yóbbu seen biir kër kon loolu wax dëgg yàlla lu rafet la Euh, Wally Ballago Seck te teew fa mu nekk lu rafet ku xam mbirum showbiz xam ne moo buuse këccëb surtout buuse chaque jour da ngay gis day classe kii di nga xam te ne mooy Wally Ballago Seck mhm. donc tey Wally tey defal ko surprise bu rëy boobu loolu yaakaar naa ne rëy na trop ci moom ndax wane na ko ndax moo Pawlish Mbaye ñoo toog Pawlish Mbaye eh, maa ngi dégg seen benn interview Pawlish Mbaye naa naan ko euh, bi ma naan la Wally euh, Pawlish Mbaye dana dana buuse këccëb Wally mi ngi ñëw mhm. buuse këccëb dana ko waatal mhm. donc gëmewu ko sax yàlla def mu ñëw fa teg fa tànkam donc mu nekk acte bu rafet boo xamante ne nii amaana Boucher Ketchup wax na ko nee na mënatul dootul wax dara waali lu ñaaw waaw ah, loolu loolu day gën a rafet parce que Boucher Ketchup ku mel ni moom tamit nit ñi xam nañ ko pare li mu war a def mooy instant bi di rafetal euh, na bëgg ñëpp na bëgg ñëpp ba pare far fi mu far mhm. waaw parce que fii moom faaw opposé di am waaw faaw artiste bi am artiste bi am artiste bi am artiste mhm. du tee kenn ku ne mais showbiz bi dootul neex de. ah concurrence bu amul concurrence bu amul showbiz bi dootul neex ndaxte Waly Sidi Diop juboo nañ. léegi ñun ñun sama classe yi man ma toog kàddu ma juboo ci lan damay bëgg kaay mais juboo ci lan. Ah? juboo ci lan. ah ñoom ñaar ratax na. dëgg la daa war a ratax sax nag. mais Sidi Diop nag instant bii nag dafa jël Waly def ko def ko def ko mag. ndeysaan mu nekk at acte boo xam ne c'est touchant Waly di jooy Sidi di ko nax dafa rafet daal macha allah lu rafet la. macha allah macha allah suba teel léegi nag ñi nga ñi nga xam ne dañ doon toog transhumé man yi ma gis. ah <laughs> nee na ñu ma gis li ñu wax waa koñ ma gis li ma gis barki dem wax naa ko nee naa ko rafet na rafet na seen i bët li ñu wax waa ah. koñ ba d'accord naa ci c'est hmm. bien beau rafet na. waaw mais ay pexe ngi ci. pexe la pexe. xam nga pourtant nag am na ku ko wax de. dama lay wax xam nga euh, naafiq yi dañu mës a tabax jàkka ba mu jekk hmm. ñëw jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga tijjil ñu ko hmm. yàlla suñu borom ne ko déedéet bul dem. Mhm. piège la. Mhm. ndegam yonent bi na alayhi wasallam doon naxee loolu ci li mu gën a bëgg muy jàkk julli. Mhm. sàkkantuma ak ñii nitu àdduna yi. ñii li ñu def ay pexe mi ngi ci. ñan ñan dañuy def Siré lu ñuy def pexe mi ngi ci. pexe bu baax mi ngi ci. ban pexe la Bada. non bu doy waar la Bada ban pexe ci ne Bada. showbiz la rek lii yëpp ñu ngi lay gis ne. ko nax Waly yëkkati enveloppe du ne li ma bëgg ci yow du Zénith. mais dóoral boo paree nga ñëw ñu ànd Bercy ñu du diine. xam nga ay sët showbiz du diine lépp pexe la rek. kon yow rafetlu woo bi kenn ku ne euh, nooy jaayee sa yëf mhm. Waly dafa toog këram dëgg la yàlla def na ñëpp ay waykat waaye moo leen raw mhm. ndax wax na ko Sidi Diop mi ngi toog donc du samay wax mhm. ndax Sidi Diop bi mu toogee ñëw Waly Balago Seck loolu la ko wax mhm. nee na ko yow boo xoolee ba xool sax xam nañ ne Sidi mooy Waly Waly mooy Sidi dëgg la déedéet déedéet waxul mooy Sidi ah. def leen très ci wax ji dem leen vidéo yi ah. xam nga nit dina la wax Waly mënoon na wax ne Sidi mooy Waly Waly mooy Sidi déedéet Waly waxul loolu dafa yem ci première wax ji bi dane mm. ku xool sax xam ne siidi mooy Waly mm-hmm. sa doxin sa solin mm-hmm. fa la yem dut baaraam teg donc wan na ne wan na ne délégation bi ñëwoon délégation bi ñëwoon ak seen pexe yi ñu indaale mm. du mën na leen ci saase fi ñu toog ngeen baal ma nag mais mm-hmm. du mën na leen ci saase xam naa ne yéen waa Sidi Diop ngeen mais ngeen baal ma mais damay décortiquer damay damay décortiquer damay décortiquer damay décortiquer waxtaan bi mu leer waalee wax du samay wax man Mm-hmm. nee na ko yow di ñëpp xam na ne yaay yaay yaay yaay waali mm-hmm. ci solin beeg doxin daat ne ko takkal sa fit nga dem Zénith nga dóor ko te ñëwaat new ko ñu dem ne takkal sa fit mm-hmm. nga dem Zénith dóor ko te ñëwaat ñëpp xam nañ ne du dem Zénith même ma ñëw même ma ñëw rek la ma lay wax li lu war loolu parce que invité wuñ ko doon ko éviter ndax Zénith oh. jàpp nañ ko deux ans trois ans ci ginnaaw invité yu sundur Baaba Maal euh, waykat yu jigéen ñi ñoom ñëpp te ñëpp xam nañ ne Baaba Maal gisul dañ dem Fayland kenn déggatu leen. mais day rendre hommage seen papa yi c'est le roi di mbalax nga d'accord naa. li mu fi def moom kenn dootu ko fi def. Baaba Maal Baaba Maal déjà du moroom kenn. Oh, Baaba Maal tey jii Zénith bu ko tëggoon day xar day moom gise fermé la koy def. kon du mm-hmm. moroom kenn mais dañ dem naan Fayland. Mm-hmm. seen seen mbir weesu na. Mm-hmm. donc mu invité ñooñu ñëpp invité wul Wally mu toog ba mu des un mois. mu bëgg a être ñoom ñu bëgg a jaxase sénégalais ak waali moo tax ñu ñëw kër waali balaa ko sekk mais bon fu ñëwee dafa fekk gaynde bu boof waali ne ko demal takkal sa fiir nga dem seeni i dóor ko te boo ñëwee ci déwén si mm. l'année prochaine mm. nga ñëw ñu dem Bercy maag yow mm-hmm. buñ demee sama yéene ci yow di zénith voilà ñu dem Bercy maak yow dóor ko mm. waaye déglul seew sew bi mm-hmm. bun waaye nag nag ma ko teel a yëgal xam nga bii teelu koo yëgal mm-hmm. nag ma teel a yëgal ndax damaa jàpp dal bii ah, le 29 wala day tëgg Allemagne. est-ce que dégg nga ma nag ma ko teel a yëgal kon ça veut dire loolu dafa am solo teel koo yëgal nit ki dafa am solo nag ma ko teel a yëgal waale lii la ko wax. Mhm. donc duma na ko foofu ci ñetti parti yoo xamante ne ñoom bi ñuy dem yaakaar naa ne xamuñu sax seen dàll fi ñu ko teg. mais yóbbu na yóbbu na enveloppe pour jox ko waale invitation d'honneur parce que maa ngi gis seen affiche. waaw xanaa yow dafa mel ni dafa mel ni déggoo olof rek dama ne dama ne ñoom invité wuñu invité balaa ko sekk mhm. dañ ko éviter. non éviter affiche yi man seen ponkal mi laa toogal. Mm-hmm. ma ne ko grand. man ay pexe ay pexe laa doon teg de ma ne ko grand man ne ma ne ko. Mm-hmm. lii boo bëggee mu réussir xam nga nooy def waaw waxuma sax boo bëggee mu réussir ma ne ko pourquoi invité wu leen Wally mu ne ma non non leen invité ma ne ko si da nga ko war a invité xam nga li tax. Mm-hmm. Wally Ballago Seck bi muy dem Bercy. dafa dem invité Youssou Ndour mais xam na ni Youssou Ndour du ñëw. xam na ni moom Youssou Ndour ñëw parce que neexoo mais pour lan pour xam nga pour lan pour pour comme Youssou Ndour bu invité wul Youssou Ndour Youssou Ndour da koy jaxase sénégalais yi moom mu dem jaxase kook sénégalais yi ba mu tëggee biir si Youssou Ndour ñëwul ban xëyee sénégalais yëpp dañoo dal Youssou Ndour mhm. Youssou Ndour dem ci biir si Pape Diouf yëkkati loxoom ne ko maa ngi ci yow mhm. boobu nag la yu la nangu public gu Youssou Ndour nangu public gu Pape Diouf nangu public yëpp daal di koy téye ci loxoom mhm. parce que sénégalais day sot da nga moo tax ñoom buñ muusoon ñoom buñ muusoon dëgg bien avant dañuy teel def affiche ci Wally balaa ko Seck donte du ñëw bu ñëwul nag su boobaa ñu jaxase Wally ko Seck ak askan bi. Mhm. parce que dañ naan su boobaa kon ndeke dafa soxor mais bu négee ba mu des un mois. Mhm. ñu bëgg ko jaxase ak sénégalais yi Wally Ballago Seck mat. bu mat doon gaynde da xalaat ne ndëgg sërëx la non ndëgg sërëx mhm. parce que boobu loolu baaxul moom Sidi Sidi Sidi Diop warutoon dem sax kër Wally. Sidi. non noo non ndaanaan. soo si ndaanaan. Euh, non Sidi rakk la te mu dem tey kër Wally. non non wax déedéet xam nga ndax warul dem xam nga ndax warul dem baaxul ci moom Euh, baaxul ci moom xam nga ndax wuy ma ah, parce que non xam nga ndax baaxul ci moom waali gaynde la wuy ma hmm. non waali gaynde la ndaanaan la ndaanaan doo ko song ndaanaan boo ko songee da ngay daanu ma dem man nag waxuma en tant que cadre far ci waali wala far damay wax en tant que chroniqueur bu nekkee xam nga tuuti ci showbiz dara parce que ex la dem des un mois man pour man baaxul la Sidi mënoon na jubóog waali mais mu bañ a dem nam dem dem bi amul important jaru ko quoi parce que parce que kenn du ne kenn du ne Sidi kenn du ne waali demul ci Sidi Sidi ñëwul ci waali loolu garaaw gars yi dem dañuy xam ne kii nga toog dogru xam mënoon na koo yëgal parce que Sidi dem bi baaxul ci ñoom Sidi mi ngi ci yoon fi mu toll nii mhm. am na loo xamante ni si bu ko defee am na yenn yenn ci fansam yoo xamante ni si gisatuñ seen bopp ci Sidi mhm. gis nga artiste da ngay comme ni Wally def Wally dafa rayante gëm boppam. Mhm. ba egg fi mu egg. Mhm. Sidi foofu la waroon teg tànkam mënoon na juboonteeg Wally xulawuñ jotewuñ dara. Mhm. parce que jub juboo bii nii nii am na showbiz la. concurrence foog mënu cee ñàkk foog mu am. mais lii mu def nii man pour man. mënoon na xaar tuuti mënoon na gën a liggéey ba ci kanam. mënoon juboo Wally ak yooyu yëpp garaawul mënoon na ko invité tamit invitation bi moom. ñëpp a ko rafetlu. Mhm. mais dem bi mu def comme ni ñu ko waxee ni ko yenn ci xale yi di waxee jébalu bi mu jébalu nii dafa teel parce que mi ngi woon ci yoon daf ko dafa mel ni ko. yegg dañoo bokk gem bi. dafa mel ni daf ko baareel yoonam parce que yenn am na yenn fans yoo xamante ni dañuy. en tout cas ñaari fan yëpp dañuy ne nii découragé nañu ci Sidi. ñoo nekkaat Sidi yëkkati que xale yëpp nee nañ Sidi jébalu na xam nga kon loolu am na loo xam ne neexatul Sidi musta jébbalu nañu bàyyi waxu wax waxu waxu waxu naxa saxandak yi ñuy toog di wax man loolu eh. d'accord ma ci eh. parce que Sidi Diop mm-hmm. ak Wally Seck man pour man ñu dara mm-hmm. parce que même bu dee daf ko yéex a yëgal mm-hmm. xëy na dafa toogoon doon xaar parce que boo xoolee toujours genre Serigne Bada yi ñooy toog ci palaato plateau ñooy ànd kii ba mu neex leen ñu ëlbati ko ànd ak kële waaye yaakaar naa ne gàcce du leen raj parce que bañ fi toogee naan Wally lii yëg kële lii yëg kële la lay gis nga Wally ak Sidi amuñu benn problème jotewuñu dara parce que boo xoolee tey ay niti Wally Seck ñooy génn di daal ci Sidi mhm. Sidi doo ko dégg mu jël wax bu ñaaw teg ko ci kaw Wally Wally mosoo koo dégg mu jël wax bu ñaaw teg ko ci kaw Sidi mhm. peut bu dee Sidi dafa toog ba daf ko ko yéex a yëgal. loolu mais mais Ngoré li ñuy wax peut-être daf ko yéex a mais bu demee déplacement. ak garagement paaka noonu du waxal ci wàllu moom daal di nga dem si nit moom daal di nga dem si nit. waale xoolal waaw a dem ëpp doole. nekkal foofu de laa yemale barki Nabil Moustapha sama analyse laay def man aw ma may far. dëgg la sama frère la waale sama frère mais eh, bu demee Sidi daa war a dem ah, ah. Sidi. daal ni ko ñëpp jàngat jàngat bi ci ñëpp am ci tool yi mooy dafa jébalu. Mhm. parce que Sidi boobu jubóo bi amee dafa mel ni dafa mel ni dafa bi. non non du question xale la non la moo tax waroon na demal boppam ba ci ah kanam non am amul amul. xuloo am na genre kii. ak Serigne Badane Amina mii moo tax tey Sénégal du dem. ngoone comprendre ak Waly ah, Sidi ak Waly dëgg la ku ne wuñu mais kenn ku ne kuy sa baay da nga war a xam ne kii mooy sa baay. parce que Waly fi mu yóbbu musique sénégalais. waaw non fi mu yóbbu si fi mu yóbbu musique li mu def ci musique. Ah? ñoom xaajuñu ko ba koy def Waly Balago Seck Waly Balago Seck mi ngi ci album Sidi Diop benn album la amagu moog Bongo Man yee maase. mais loolu du dara. mais ba tey Sidi Diop. waaw bu ko kennalee bu ko kennalee bu ko kennalee rek. frère am la xam nga euh, Youssou Ndour dañ koo nangul ni carrément mooy bàyyi Waly kooku kenn werante wu ko. waaye wa si Waly Sidi Diop euh, doomu Waly la kenn du ko weddi. déedéet kenn du ko weddi. non non parce que xam nga lan moo tax. Hmm. na def li fi Waly def ba pare. kese. li Wally def ah, defagu ko Sidi way rek lay def non mën na way Sidi mën na way kenn wéral mën na way wayalook la mën na way mën na way lool mën na way mën na way mën na seen ah, man man ay seytaane la ah, mën na way mën na seen waaye Wally mën de non Wally Ballago Seck ku baax la mais bàyyi leen aa yéen à personne yéen tax nit ñi duñu dugoo Wally nit ko xol bi ba pare analyse bi sëñ sëñ Bada def pommitaire du neew pommitaire du neew analyse bi nga xam ne moom la sëñ Bada def wallaay farlu dëgg man dëgg non non c'est faux am na lu laxatu ñoom ñooy def ay jugement de valeur mais Wally sekk li mu wax noonu dafay defee ko dara lu ñaaw. man lu baax la man Sidi sax d'accord naa ne dafa yéex. ponkal la dafa yéex man damay nangu dëgg. Mhm. dafa yéex pour ñëw ne ne ne Waly Balago. Mhm. sama frère bu invité naa la même comme Waly ni mu ko defee ci Youssou Ndour même donte mhm. ñëwul. na def li nga xam ne mooy cëram maa d'accord naa ci parce que Sidi dafa juum. parce que tey bul déglu waxul nit ñi. man daal wala dara man daal gëmu loolu parce que paaka noon du xuur. waaw paaka noonu moom. du xuur ay non ah yow tamit Sidek Sidek Sidek dañoo rafetlu seen. ñëpp a kontaan dëgg yàlla ma ne Sidi ak Waly amuñu problème. ñëpp a kontaan ponkal mu ci ginnaaw la. Sidi ak Waly amuñu benn problème. dañuy ah, feexee Sidi Diop sax moom nee na moom lii bu amee médiation bi. moom bu sañoon tey. bu sañoon ko fa. dama ne ñëpp ne ana Omaro bala ngay xam ne après daa ak Waly amuñu problème Sidi génnoon fi mu nekk mhm. ponkal bi mooy xeexee Sidi Diop te ponkal bi amul benn problème mais amaana saytaane moo dox ci diggante moom Wally Ballago Seck non xam naa li ma la ponkal moom nit ku baax la ponkal bi nit ku baax la amul benn problème mais dama ne ranking day am non dama lay souligner ranking day am ranking day am est-ce que comprendre nga koy xeexee xeex moom ñu koy xeexee dañ war a bàyyi Sidi moom xam na loolu Sidi loolu da koy déranger parce que Sidi Sidi Wally lay topp. non Sidi man xoolal man ni mu côté Wally moo ma njëkk neex. Wally la bëgg ndeysaan dafa mel ni ku yàqamtoon jubóo bi. non Wally la bëgg Sidi Wally la bëgg. Ah, ah, Ami Collé mi yéen da ngeen ko wax mu rob ne dafay Sidi Diop dafa yàqamti woon jubóo bi. non ngi topp. amul amul problème yàqamti wala dara. Wally la bëgg Sidi. Mhm. dafa bëgg Wally Wally ah, dafa bëgg Sidi. xam nga ñoo ciy topp. genre Amina yeeg yi ñooy toog ci plateau yi di wër di wax ak nekk ak nekk ci direct yi di wax ay waxu wax yoo xam ne tegwul fenn di jaxase ay nit Sidi Diop mën na li muy def ñu nangul ko ko mhm. Waly sekk mën na lu ñuy def ñu nangul ko te Waly topp ci ginnaaw kenn nee naa la bi fi papaam nekkee topp ci ginnaaw kenn faramaare ni am ngeen wax bu ngeen di wax fan yi ne léegi euh, Zénith dina fees ndax Sidi Diop jébbalu na non non même bu dul sax fees moom yàllaa ko yor fees bi baa xam nga ne fees yàllaa ko yor zénith gi ca gi ca fermé lay def. lu leer barki sëñ bi ko yàlla loolu sax man loolu d'accord te loolu du ma ci ko wax ndax loolu lañ ñëpp di ñaanal. non loolu lañ koy ñaanal fees ko yor kenn xamul sax ndax danañu fekk duñu fekk yàlla rek moo ko xam kon loolu ku ko wax dangaa ñeme yàlla rek yaa ngi may dégg amin yàlla fekk ñun ñëpp yàlla ñu fekk ñun ñëpp yaa mooy dégg ñu fekk ko ak yeneen ak yeneen yaa muy dégg ndax dañoo bëgg a dund on veut vivre Zénith Zénith Sidi Diop sénégalais doomu Sénégal waaw buy tëgg dañ koy ñaanal mu fees parce que wax dëgg yàlla fee muy tëgg sax ma ngay fees baara mundi gee muy tëgg bu tëggee day neex fees dellu kon Zénith Zénith ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi mu fees te neex parce que tamit mm-hmm. ay sénégalais ñoo ci dugal seen xaalis mm-hmm. ay sénégalais ñoo ci invertir te mooy ñëpp tey jii bu génnee amaana wërsëg boobu man mën naa dem ba lekk ci ku ne lekk ci kon booy ñaan nit da ngay ñaan jàmm am jàmm am mooy nan neex te fees waali balaa ko seek am na ci date le vingt neuf day neex te fees incha allah rabi parce que démb ñoom ñaar ñi ngi woon mariage voilà donc loolu rek la c'est-à-dire point problème bi daal leen la li borom Touba wax rek nan nan xam ne naar bee fi indi xorom si mm. musique Sénégal daal Wally Ballago Seck moo ko téye moo jiitu moo nekk ci kanam nangu ko ak bañ koo nangu moo ci hmm. am looloo fi ne point waaw sinon nag waykat yëpp mën a way Momo Dieng day toj Ibrahima Madior day fees del ah, Bambali Seck Bambali ngi tëgg five chaque samedi léegi Bambali Seck mais Bambali Bambali Seck mi ngi eh, mi mi ngi puusanteeg mi ngi puusanteeg Momo Dieng de hmm. Momo Dieng ba le premier ah, la ko yóbbu kañ lañ fay premier juin tëngeej la wala juillet premier premier juin maa ngi gis affiche bi premier ñu ngi ci lan yow. ah ñu ngi ci mais juin. ah ñu ngi ci mai nii. waaw damaa xam fuy juillet juillet la. ah ayca. Ah, juin wala juillet. Eh, yow loolu foo ma ra renseigné jamono gi. renseigné wu ngi naan Waly yéen ngi naan Sidi Diop non moom moo ko téye de. game bi moom bu ngeen bëggee dégg dëgg ba ñoo xam ne jamono ku doon tëgg mécrit dootoo tëgg ndax moomoo moomoo c'est normal moomoo c'est dafa mën mm. ñooñu ñëpp mën nee naa ay Keba Seck demee day toj ñu ngi si label bu baax Diéri Ngoné Sabel. premier juin vendredi premier juin Papa Keba waaw Papa Keba day toj fan yëpp mi ngi nemmeeku njaboot gi. complexe